asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di rafetlu saay su ne ànd bi ngeen ànd ak seen seen YouTube daaray Linguère di leen sant di leen gërëm saay su ne di leen sant bu baax a baax di leen wax ne tey seen seen YouTube daaray Linguère dañ leen indil lu am solo muy émission bu bees buñ leen fi indil fii mu tudd avenir sante ndax saay su ne doomu aadama bi wér-gi-yaramam moo war a jiitu lépp ci àddunam seen émission avenir santé ma leen koy defal fii ki leen koy defal di seen mbokku taalibe ndongali Modou Mbaye taalibe Serigne Djily Mbacke ibnu Serigne Saliou may fas yéene waxtaan ak yéen ci seen premier numéro tey lu am solo muy maanaam sujet tabu bu am solo boo xamante ne muy lu jëm ci maanaam mbirum éjaculation précoce muy góor buy gaaw a yëg boppam ak tamit maanaam jigéen boo xam ne bu tollee ci période indisposé naka la war a munee musalee boppam ba nga xamante ne biir bi du metti ak tamit causes yooyu nga xamante ne mooy indi biir bi di metti ak ban ventre bi lan moo koy indi ak tamit bu ko amee naka la ko war a fajoo ba nga xamante ne prochaine fois buy gis réglam daanaka biir bi dootul metti ba ventre bi dootul metti ak góor bi nga xam ne am na éjaculation précoce naka la ko war a mën a fajee ba nga xamante ne maanaam éjaculation précoce bi dina dañ si moom incha allahu rabbi kon numéro avenir santé moo nekk noonu ñu fas yéene tàmbali seen émission fii ci seen seen YouTube daaray Linguère di sàkku saay su ne ginnaaw ba ngeen ko suivre ba pare ngeen partagé ko ci seen compte Facebook Instagram Telegram ak fépp liggéey bi gën a yaatu incha allahu rabbi mbokku jullit yi mbokku taaliba yi nañ leen ko tegtalee noonu lañ koy fas yéene tàmbalee muy waxtaan ak yéen tey lu am solo muy sujet tabou fu ñuy njëkkee mooy maanaam lu jëm ci mbirum wér-gi-yaramu góor bi moom mi nga xamante ne ndeysaan saay su ne gis na ne buy nekk ak soxnam day gaaw a yëg boppam wala mu ngi dem ba toll foo xamante ne day am éjaculation précoce mooy gaaw a yëg boppam wala léeg mu dem ba toll foo xamante ne maanaam léeg-léeg day gaaw a sonn loolu liñ la ci mën a tegtal mooy ngeen xam ne fatiguement la fatiguement da koy indi ak stress ak manque nelaw bu bëri ndaxte doomu aadama bi surtout góor gi bu fekkee alimentation tamit de ci joué marché maanaam bu fekkee lekk bi ngay lekk jaarul yoon maanaam lekk gi ngay lekk maanaam set gi des na lekk gi ngay lekk amul vitamine te maanaam yaa ngi faral di jëfandikoo lu mel ni maanaam diwlin diwlin bi ngay faral di jëfandikoo guddi bi léeg-léeg da koy indi moo tax bu fekkee sa soxna dalaa toggal comme lu si mel ni ñamu ginaar comme ay soosu ginaar ay tufeek ak loo xamante ne lu niin la da ngay fexe nga teel ko lekk guddi bi maanaam ginnaaw ba nga jullee timis ba pare rek na nga reer waaye sénégalais tàmm na loo xamante ne day toog ba vingt et une heures vingt deux heures muy doog a reer te loolu da koy indi jafe-jafe si wér-gu-yaramam surtout góor ndax jafe-jafe yi ngeen di gis ci problème rein yi ngeen di gis yëpp ko loolu moo koy indi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon loolu bokk na ci li koy indi muy fatiguement ak manqué nelaw ak tamit stress bu bëri ak tamit maanaam diwlinu guddi bi dina ko indi muy maanaam éjaculation précoce mooy maanaam ngay gaaw a yëg sa bopp booy nekk ak sa soxna ak tamit maanaam léeg-léeg ngay gaaw a sonn loolu da koy indi lool. moo tax góor bi baax na maanaam muy dallu ndaxte góor yàlla da ngay war di dallu di nelaw dafa baax da ngay war di dallu heure yi nga war a dallu surtout ginnaaw ba nga añee ba pare sax ngay mën di dallu trente minutes wala benn quarante minutes ndax loolu sunna la yonent bi sallallahu alayhi daan na ko def mooy sieste maanaam ginnaaw ba nga añee ba pare da nga war di dallu ndax loolu day dalal sa cerveau dalal sa organe ba nga xamante ne di nga mën a am jàmm macha allah rabbi ba pare tamit ngay teel a fatu di teel a dallu bi baax na ci trop. macha allah loolu baax na si stress mooy maanaam xalaat bu bëri ndax doomu aadama am na fu muy toll xalaat bu bëri maanaam xalaatu problème mu dépense lay doon wala mu am jafe-jafe di xalaat loo xamante ne da koy maanaam ya xamul fu mu ko war a fajee wala mu am problème bu sérieux nekk di si di si xalaat ay projet ëllëg ak yooyu da koy indi muy naam stress loolu da koy indi tamit kon nañ si bàyyi xel bu baax a baax xalaat bu bëri da koy indi. moo tax góor baax na ngay moytu xalaat bu bari bi yax yooyu yëpp dalay indil éjaculation précoce ak tamit excitation bu bëri excitation mooy maanaam da ngay bëgg subitement rek éjaculer te fekk loolu maanaam gënul ci yow mooy excitation bu bëri da koy indi tamit loolu day indi éjaculation précoce moo tax nit ki baax na nga ànd ak sa sang-froid nga ànd ak dal ndax saay su nekk rek yellul nga ànd ak ki nga xamante ne muy sa partenaire muy soxna si nga àndal moom yow nga yëg sa bopp te moom yëgagul boppam loolu àq la te nañ ko moytu lu doy waar la nañ si bàyyi xel bu baax a baax kon dinañ si leeral waxtaan ak yéen incha allahu rabbi ki nga xamante ne bëgg na si mucc naka la war a def incha allahu rabbi ki nga xam ne bëgg na si mucc maanaam loolu wax nañ la ko na ngay faral di dallu da ngay faral di dallu tey wàññi xalaat bu bëri bi te moytu ñam yi niin yi nga xamante ne yaa ngi koy lekk par guddi nga koy moytu am na solo ñu bàyyi ci xel bu baax a baax loolu dina la dimbali ak stress bu bari bi tamit suñu borom dina la dimbali ba nga xamante ne di nga mën a mucc ci lool incha allahu rabbi ki nga xamante ne nag maanaam am na ko maanaam day feebar bi nga xam ne muy éjaculation précoce sonal na ko maanaam day gaaw a yëg boppam wala muy gaaw a sonn. kooku li ma koy xelal mooy na ut lu si mel ni jar lu si mel ni jar bu ko utee euh, soxnam na ko ko jëlal ak benn doomu gingeer bu jëlee benn doomu gingeer ak petit cola lu toll si juróomi doom mu xolli ko léegi da ngay jël jar bi ak benn doomu gingeer bi ak petit bi ñu dëbb ko ba mu mokk rumbax buñ ko dëbbee ba mu mokk rumbax ñu daal di ko jël euh, baxal ko ak euh, lu toll si benn litre ndox dañ koy baxal ak lu toll ci benn litre ndox bu ko baxalee ak lu toll ci benn litre ndox baxal bi na doon loo xamante ne na dollu ci maanaam 15 minutes na toll ci maanaam 15 minutes lay mat incha allahu rabbi mu teg ko mu tàng lu mot 15 minutes bu ko defee ba ngaaw ba nga jëlee jar bi ak euh, maanaam euh, gingeer bi ak euh, petit bi ba dëbb ko ba jël ko boole kook ndox teg ko ci casserole baxal ko lu toll ci 15 minutes ndox bi na toll ci un litre baax na boo paree da nga koy filtrer bu fekkee amoo filtre maanaam da nga koy segg dangay mel ni kuy segg café Touba nga jël sa popeline wala sa percale nga muur ko teg ko ci récipient bi daal di ci sotti ndox bi nga xam ne baxaloon nga ko mu daal di siit léegi li nga xamante ne muy jar bi ak maanaam euh, euh, gingeer bi ak petit bi des ci kaw ndox bi mu jël ko. faral di ko naan par guddi lu si toll maanaam ñetti kaasu ataaya ba ñeenti kaasu ataaya wala benn kaasu verre mu koy naan incha allahu rabbi si kàttanu suñu borom kooku nga xam ne am na jafe-jafe si éjaculation précoce suñu borom dina ko ko teggil incha allahu rabbi